li waraloon marché bi mooy dañoo am jafe-jafe jafe-jafe boo xam ne Aquatech moo ñu ko teg dañu jàpp ne Aquatech bu tegee jafe-jafe askan bi état bu Sénégal war nañ ci am taxawaay war nañ ko jéem a saafara ndax nag olof daf ne goono geenu golo gudd na waaye lu ci lu ci tong borom borom yëg ko kon état am na ay am na am na ay renseignements am na ñu ko nekkal am na nay autorité yoo xam ne ñoo ne ci local localité bi war nañoo yëg jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko ndax jaaduwul ñu am ñaar fukki fan forage bu Ndoulo ñu tëj ko ci ay tappale tappale yu mag sëkk ndax amul lu ñu layee lu dul ne dafa am benn baaxeñ boo xam ne moo yéegoon ci euh, ci ci poto bi mu am maas euh, décenteur bi lakk Senelec ñëw nañ ba defar décenteur bi ak Aquatech ñëwul teg fi tànkam ma yaakaar nag ci état bu senegal bu jëlee forage yi ne dafa bëgg gestion bu gën a baax mu signé contrat Aquatech jox leen ko bu ñu ñu war a gérer ñu war a gérer suñ forage bu jafe-jafe amee dañ ko war a saafara ndax ak Aquatech si wul ak askan bi mais état bu Sénégal la signé contrat kon jot na état bu Sénégal taxaw wax ak ak Aquatech mu bàyyee ñu suñu forage ndax ñun waa ak Aquatech bi mu fi ñëwee di jël ñu koy jox suñu forage amoon nañu gestion bu baax nañ ci suñu forage bi ñu delloo ñu ko ndax trop c'est trop dañuy dégg président mu naan l'heure est grave mais l'heure mi ngi door a grave fii ak ah, samedi bu ñu réglé wul problème bi delloo ñu suñu forage danañ leen taalee suñu bakkan yi bañ ñu ci dara. waaw manque ndox yi li ko andi mooy Aquatec dafa ñëw jël gestion bi ci Asifor yi état signé ak ñoom contrat directeur Aquatec ñëw na fii ne état bu Sénégal moo signé ak ñoom contrat ci teewaayu Mansour Faye avant élection 2019. lu mu wax ci kanamu li muy wax nag ci kanamu euh, adjoint commandant la ko wax kanamu adjoint euh, maire kanamu sous-préfet ne état moo signé ñoom contrat ne dañ leen jox 89 milliards pour ñu réfectionner forage yi def ko ndox mu neex qualité quantité defaraat réseau bi. neen nag léegi nag état bi élection yi jàllee respecté wul li mu waxoon directeur aquatique Diop mu ne comme état respecté wul li mu waxoon ñoom aquatique duñu ñu signé li ñu signé li ñu signé ak état askan bi ne ko nag comme yéen du ngeen respecté li ngeen si woon. te yéen a ngi ñu andil facture yoo xam ne mënuñu ko fay ci seeraay ñun tamit mënuñu ko ne di fay loo xam ne consommé wuñu ko ci loolu la daje nañ ak Aquatec lu mat fukki yoon ñuy wax ne tamit askan bi tënk nañ ne Aquatec déclaré nañ ko perse non grata fii ci Ndulo mayetuñ ko mu yabal kenn ci suñ ne day relever mayetuñ ko tamit muy joxe facture mayetuñ sax oto ak aquatique mu doxantu ci dëkk bi auto aquatique bu fi jaar danañ ko massacrer loolu ñun ñoo ko wax te pare nañ jël nañ ñu responsabilité. ñaar fukki fan waa Touba kanam ñoo ñëw di ñu may ndox ak ñenn ñi nga xam ne am nañ wërsëg ñu jëndee oto di ko may askan bi dëkk boo xam ne dafa am collège am école primaire am franco arabe am case tout petit am lycée ñu dem ba euh, élèves yi nga xam ne ñu ngi jàng amuñu ndox buñ foobeere seen seen ay tableau buñ demee toilette amuñu lu ñu laabee loolu ëpp na li ko andi mooy forage bi moo am moom moom la waa Aquatech ne dafa am jafe-jafe nanguwuñ koo defar bàyyi ko ñaar fukki ñaar fukki fan mu tëj jàpp naa ne loolu jaar jëkkul jaaduwul te autorité nañu yërëm ndax askan bi sonn nañ. leenu tiis ñu di ko wax mooy ndox ndox moom ku ko xañ nit xañ nga ko lislaam ndax nit mënta julli te jàpput nit ba taxay te sanguwut farata bu fekkee am na lu ko taxaw fara sangu farata kon nit bu xëyee amul ndox day nekk en vide <coughs> ndox mi ñu nu xañ nag te tëraluñ ko ci ci benn fulla lu dul ak yabeel maa ngi xamal président Macky Sall waxuma ak e hydraulique waxuma ak kenn président Macky Sall lay waxal ndax maak moom bi mu bëggee réew mi ñoo àndoon di ba bis ba muy doon dara njël tuur moo ko Ablaye Wade keroog place Obélisque douze parti yëpp ànd ak moom bi ma agsee dane ma doy nga ma jëlal parole ma jël parole xeexle ko kon dëkk ma nekk kenn waru koo xeex facture yi ñuy wax di ko teg waa tund bi ak forage bi facture yi ko amat loo añee amoo loo reere doo fay ak facture yi quarante mille ak cinquante mille ak soixante mille loolu du am maa ngi wax Macky Sall directement mhm. ne ko man seexu naa mhm. miin nga ma miin naa la mhm. xam nga ma xam nga ma xam naa la te nee nga sama xarit nga ma bëgg daal ndula gii am na tardement yu bare bare bare bare bare yu nekk ci dëkk bi factures yi ñuy wax kenn du ko fay amuñu lu koy faye ma bëgg mu xam ne dëkk bii bañunu ko da da leen a jàppalewut yaa ngi may dégg samp fii kenn nit ku am maanaa koo xam ne mën na koo jàppale pour waa tund yu bëgg ko ba bañunu ko fii bu fi defee lim fi war a def bu fi watee mooy gañe loolu laa ko bëgg a xamal moom xam na fa ma jaar ak Ablaye Wade yaa ngi may dégg moom nee na sama xarita te réew mépp lay wax sama xarita bu dee sama xarit bu mu toroxal fi ma dëkk fi ma dëkk laa am nanu sagal ñun ñëpp te sagal ma pile rapidement la yónnee ñu defar forage bi balaa mat ñaari fan burul loolu burul loolu bu ma waxtaanee ak waa tund wi bu ñu yëngatuwaatee ay gendarmerie ki police ki militaire mënuñu ci ñun dara